waxe wëy bu ngeen di at nekk xaadi da ngay nekk xaadi bañ a moytu ba loolu mooy lan mais nit ki charia lay wax li yàlla wax lay wax li yonent bi wax lay wax képp koo wàcc yoon ñu teg la ci yoon ya charia dafa wax ne ñeenti seede yu maandu yu nekk jullit lu nekk gor kenn bokkul ak sa morom foo jógee kenn wanu ko sa morom ñu gis ko awraam nekk ci biir awra ndaw si kël miru wa di fil mukk xalati loolu téere yi la ne amul lu ñuy wax ki ak lu ñuy wax ki da koy généraliser ku ko def xam ne yaa ko def loolu bu amee nag da dañuy jël kañ ne moo ko def ñu yar ko su laajee rey ñu rey ko su laajee dóor ñu dóor ko ci sariya laay wax su fekkee nag loolu amul ñeenti ñu seede yooyu amul ke sariya maandu na newul amul nag mooy maandu na parce que ñeenti yi ko ñeenti yi ko war a may mu taxaw àtte gisu kon xaat yi day maandu day maandu waaye bu ñeenti yi matee bañ indil ko euh, ki ki def lëf ki def du tëba tëb de day yónnee laajte koñ ba kii dëkk ndax maandu na ndax jullit la ndax gor la ñu ne ko maandu na xam nañ maamam gor lañu waaw jullit la mu yónnee ci keneen ba ñeenti ñi mat ba nga xam ne am na charte yi mat na mu doog a nag woo ki ñuy woo ne ko charia rey na la wala charia duma na la bu dee bu dee am na jabar rey na ko su dee amul jabar duma na ko waaye bu amul nag charia day maandu loolu laa wax liñ bëgg duma ko wax duma ko wax parce que awma ci lu ma leer te ñuy waxit it amuñ lu leen leer ñuy wax rek su sonko nag waxee ne man maa njaaloo moom yuqasu mukallafu bi iqraar yi droit ñëw na droit nee na ñu jàpp sonk nag àtte ko parce que nee maa def moom maa def la wax ginnaaw Sonko nag wax na ne maa def yuqasu mukallafu bi iqraar yi kon dañuy jàpp ne li wax moom moo ko wax ñu àtte ko su ndaw si ne su ndaw si biiree biiram mooy seedeem biiram mooy seedeem moo wane ne kii njaalo na waa ki mu ne moo ko njaaloo na njaaloo moom nag kooku ne njaalowuma ak moom loo ci man lan nga ciy wax mais wax ji jaru ko loo jàngul da nga ciy maandu loo jàngul da ciy maandu li nga jàngin nga wax ni mu demee rek waxal ni mu demee pare ci man faralu ma Sonko faralu ma Adji Sarr xaw ma leen mais man charia laa faral charia laa faral bu Sonko noonu maa ko def yar ba dal yokk su ma ko bi xaraar yi na defuma ñu ne ndaw si ku la biiral mu ne Sonko la ñu ne ko ñu ne ko ana say seede yan seede ñoo dëggal mu xool xool xool amul seede mais kooku kooku yoonu charia nekkatu ci maandu na ci xaadi day maandu parce que liñ ko wax ne ko àtte ko gisu ko kon day maandu ku génn nag wax lu la neex yaa yaa xam sa affaire la waaye lii ma wax ba fa yonent bi tëdd kenn du ko dindi kenn du ko dindi fi lii ma wax ba fa yonent bi tëdd kenn du ko dindi ñi ci wax nag seen affaire la ay man daal lii laa wax te lii la sari wax nañ ñeent seede am nañ maandu nañ nekk jullit nañ bokk buñ bokk fuñ jógee nañ ko gisandoo buñ fekkee muy takk tubóoyam ku ko wax ñu ra ñu ñu ci biir rek kal mukhalati fil euh, ci biir mbiir mi rek waaw jeex na kal mirwadi fil mukhalati nañ nañ nañ jàpp rek ne lii mu ngi ci kuur gaan ci biir gënn gi jeex na kenn wanu ko sa morom bokkuñu fuñ jógee xam nga lu ñuy dox ñoo xëy xëy rek gisandoo ko kooku loolu lañuy ñuy bu fekkee nag loolu amul xaadi nii lay def ne man kat sariya dugaluma dafa wax ñu laaj ndaw si mu ni diw la ñu ne ko ana say seede parce que njaaloo dafa am seede dafa am seede ana say seede mu ne awma seede ñu ne ko doxal fële doxal fële doxal fële lañ koy wax mais mais mais man lii xew xawma ko gis nga mbir dañ koy waxtaanee mu jeex dañ ko waxtaanee mu jeex waaye weer wi del si waa ñu sulliwaat ko te al fit al fitnatu naimatun laana allahu man ay xasaa ñu sulliwaat ko luñ ci sulli amuñu seede amuñu lu wér mais luñ ci sulli c'est ça problème su ko defee nag yooyu nga ci ñu ciy ne di débattre rek nangam nangam di wax ne lii loolu jarul wax nañ tënku ñun ñëpp ci sariya nañ tënku ñun ñëpp ci sariya nañu wéeru ci charia seet li wax charia yàllaa ko moom yoon la wu mu rëdd ne jaami nañ ci jaar yoon woowu ku ko wàcc jaar weneen yoon sa affaire la waaye ay xaab yi daa war mel nii daa war a mel naa daa war a waxi tappale yooyu mooy lan loolu du waxu dara nit kuy àtte dangay ngay généraliser mais doone Sonko aji aji aji saa rek non am na def lu am na keneen ku def lu nañ ko généraliser ba bu ëllëgee ñu xam ne njaalu lii koy taxawal taxawal njaalu ñeenti seede ñeenti ñu ñeenti jullit ñeenti gor bokkuñu fuñ jógee dañoo dox ba yem ci waaw loolu foo koy gisee waaw li mu jafe li mu yàq nit a tax parce que day yàq deru nit nga am sa njaboot ñu di la waxal yenn yi mais loolu rafetul nañuy rafetal rafetal moo gën ñaawal nañu rafetal moo gën waaye ay wax yu ñaaw euh, kii def na lii kii def na loolu ñun réew mi benn lañu benn lañu benn maam lañu koo lim maama mu dajeeg yow loolu moo gën a rafet mais mais yii ñuy topp di wax bu man de ku ma ko laaj dootuma ci wax wax naa ci ba pare dootuma ci wax de déedéet moom daal li charia wax wax naa leen ko ku gëm charia sa affaire la ku weddi charia sa affaire la charia yàllaa ko moom mais comme ni ma ko waxee oustaz euh, comme que wax nga ko sànq at mi dellu si ñu koy sulliwaat loolu nax yi bëgg a yeewaat fitne la wala jàmb ji nga xamante ne aussi moom la sénégalais nekk sénégalais yu bëri dañoo posé wu question que ni ah génn di wax ñu si bëri dañoo bëgg fitna si jugaat ci li nga xamante ne fukki doom ak ñeenti ñàkkoon na ci seen bakkan kon jot na fi mu nekk nii ñu sotti ci mbir mi ndox wala yoon def liggéey. waaye gis nga yoon dafa tënku. dafa tënku tënku bi mooy amul seede amul seede yu mat. këram la dem ak demul këram ak salon la nekkam nekkul salon ak yépp a ci yem yépp a ci yem na seede am rek na seede am rek léegi nag amuñu seede luñ ciy indi mais am na ñu def lu gën a garaaw lool am na ñu def lu gën a garaaw li Ousmane ko def lu tax toppuñu leen parce que politique uñu uutuñu réew mi politique moo tax lu ñu xam ci lu lu dul noonu ñu wax ko mais jaru ko al fitnatu naimatun laana allahu man ay xadaa yonent bi ne na fitna bu nelawee ko yee yàlla rëbb na la rëbbum yàlla nag mooy doo dajeeg yërmande loolu lu ko jar jar bañ sonko da koo jar bañ aji saar da koo jar bëgg sonko da koo jar bëgg aji saar da koo jar kenn jaru ko ci ñoom kenn jaru ko ci ñoom ceetal li yoon wax rek nga wax ko jeex na mais nag euh, affaire bu affaire u Barthélemy ay Sonko ah, yooyu ak ak yi feeñagul ak yi feeñagul waaw Khalifa Sall ak Karim i loolu luñ ciy téye yow yàlla fal na la jox la nguur ngay buur di bummi waay waay waay na nga béggee woon ba nga faloo boo jeexalee béggeel noonu suñ tëjee xale yëpp kuy nekk léegi léegi léegi kuy doon président kuy doon président ka amul nañu delloo si xel yi demee sago ak xel nañu demee sago ak xel nañu demee sago ak xel gis nga dal ci kaw nit xas ko saago ko tuumaal ko lu ne wax ja du fa jóg jamono nag mën na koo dindi mais wax ja du fa jóg mais nañ bàyyi xel loolu nañu bàyyi xel loolu euh, bañ di indi yu ñaaw ak sulli yooyu daal nañ ko teg fële nañ ko teg atte bi leen euh, bu dee charia loolu mooy atte bi charia daal atteem moo di euh, gisuñu lu lu leer ñu ngi nii nii ñu ngi nii nii ba gisul lu leer ndaw si biir ak biiru yëpp gisuñu lu leer amul seede itam yu ko dëggal te seede yooyu amul fenn waaw léegi loolu kay nañ ko bàyyi amul leneen waaye nag buñ ko bëggee topp nag di indi lii indi lii indi lii waaw kii dafa setul kii du du du du wote présidentiel du nangam nangam ndax setul eh, Khalifa Sall ñu ne setul Karim ñu ne setul waa léegi ñoo ñëpp buñ bokkee tilim ko yor réew mi ku yor réew mi ñëpp buñ bokkee tilim ti kat kaay ma wax la isa tasafaxta umuura naasi lam tul fa imra an xaasal kamaala fakta fakta nit ñi ñëpp ñëpp ñëpp ci yam koo ci càmbar xam biiram ak bitéem billaay doo ko doo ko doo ko jox dara bu lañ buñ ñu yàlla rekk a set wécc ku dul yàlla am na foo taqe ku dul yàlla am na foo taqe te bëggoo ko tudd mais ñu bàyyi loolu nañ nañ leen rafetal réew mi ñoo ko bokk maam mi ñoo ko bokk nañ leen rafetal waaye tëj tëj tëj tëj coow fii que eh, lu muy jëriñ man nag soxluwuma seen xaalis dara laa leen soxlaalul daara soxlaalu ma leen ko sama radi jële sama galaas gële sama ndox ma le doy na ma dara laa leen dara du du président du ko taq ci du kenn soxluwuma seen dara man yàlla rek lay waxal yàlla rekk yàlla rekk ku bëgg yàlla ku bañ yàlla